ana soppay xalifa bi ana soppay begaay begaay ki ya doonu baayam doonaale cheikh moo ci sant la man ni begaay begaay ki ya doonu baayam doonaale cheikh moo ci sant la ni begaay begaay ki ya doonu baayam doonaale cheikh moo ci sant la wa ana soppay xalifa bi soxna ñëwuñu fi man de suma way te wayuma la sama way wi day niin ci sakra man de suma way te wayuma la sama way wi day niin man ni ci benn bis ci la moom bank moo maali jaasaar ci sakra waa xanaa soo fay xalifa bi ñëwuñu fi waa tamit taxaw ni màggal bekkaay bekkaay waay ni ci benn bis ci la moom naa moo maali jaasa parce que nu mun dëkku ko jiite turam laa di laaj waaw mën ngeen wax bekay bekay mën ngeen lool parce que nu mun dëkku ko jiite turam laa di laaj bekay bekay parce que nu mun dëkku ko jiite sunu xalifa bi waay ah bàyyi maam boobu ak soxna Astou damay laaj parce que non kon te ko ko jiite turam laa di laaj damay laaj parce que non kon te ko ko jiite turam laa di laaj damay laaj parce que non kon te ko ko jiite turam laa di laaj man de suma waye te wayuma la sama waye popul violas Sireni de popul violas Becai, becai Sireni mi popul violas Mă-ți pot becai, becai Am atac joi Sireni mi popul violas Becai, becai Ce de ca fă domnul al șas Ce mă, ca fă no al șas Becai, becai teewul mu jaar ci Baay Ñas fa la amee lijaasa ak baas góor gi fa la amee mu ñëw bàyyi lépp toog Cees awaay mu ñëw bàyyi lépp toog Cees at yu bëri bëri la def ca biir Cees xëy xilaafa ñëw jëlee ko biir Cees ko nyaasa tero présidence andi ko nyaasa tero présidence ni wona na no baye shelcha ni wona na no baye shelcha ni wona na no baye shelcha jata yor miri na no baye shelcha jata yor miri na no baye jaag moom mu ñëw di doon jaag maam Cheikh ku mooy jaag moom mu ñëw doon jaag